أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ginnaaw bu nu tàmbalee ci turu yàlla subhanahu wa taala noo ngi ñaanal sunu yonentu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yal na ko yàlla dolli xéewal te musal ko ginnaaw loolu mbokk yi noo ngi dugg suratul maida ci kàttanu yàlla tabaraka wa taala ñu fas yéene del tey ñaari aaye yi nekk ci boppu saar bi saar bi njàngel ñaari aaye yi liñ ciy jële ci comme njàng juróom benn mbir la bi ci njëkk mooy wujubul wafa bil uhud allati bayna allahi taala wa bayna al abdi wal muhafazati ala al uqud allati bayna al abdi wa akhihi al abd li shumuli al aya li zalika mbokk yi bokk na tey ci li ñuy jàng ci njëlbeenu saar bi di maida mooy borom bi subhanahu wa taala mu ngi warlu ci ñun di waral ci ñun ñu matal dikk ñu matal kóllëre ñu matal dig bi nga xam ne moo nekk diggante jaam bi ak boroomam diggante jaam ak boroomam dafa am ay contrat yu fi nekk dafa am ay pacte yu fi nekk dafa am ay santaane yu fi nekk yàlla sàkku ci jaam bi bëgg ci moom jaam bi taxaw ci santaane yooyu pacte yooyu yàlla waxante woon ak jaam bi yàlla dafa bëgg jaam bi taxaw ci am na ci yoo xam ne diggante jaam bi la ak moroom mi jaamam yi yooyu yépp sunu borom subhanahu wa taala dafay sàkku ci jaam bi mu respecté loolu motal ko waaye wal muhafazati alal uqud waxuñu rek nga matal ko waaye sàmm ko encore sàmm nga sàmm pacte yi nga xam ne moo nekk yow jaam sa digganteeg say moroomi jaam mbokk yi tey su fekkoon ne nit ñi li dox seen diggante ci wàllu jëflante ci wàllu doxalin ci wàllu aman mbir su ko jaam yi respecté woon rek kon jàmm rek la ñuy am ci kaw suuf waaye nag su fekkee jaam ñi respecté wuñu li ñu wax ak yàlla kon du nu mën a respecté li jaam yi di waxante seen biir li jaam yi di deflante seen biir ñàkk respecté bu njëkk bi moo tax bu mujj bi kenn du ko respecté soo déggee yàlla naan bu leen takk jigéen juy bokkaale ndare mu gëm yàlla nga takk jaam bu jigéen bu gëm yàlla moo gën nga takk bu kuy bokkaale ça veut dire que ne saa yoo takkee jigéen juy bokkaale dina la bokkaale góor boo takkee góor guy bokkaale it bu la góor guy bokkaale takkee it dina la bokkaale ak beneen jigéen kon du hasard waaye ndax aaya bi soo ko dégloo dëgg dëgg dëgg nga jàng ko di nga comprendre ne aaya bi ñaari àq yépp la tënk diggante jaam ak boroomam ak diggante jaam ñi ak seeni moroomi jaam ndax aaya bi dafa ëmb loolu kon tey sunu tomb bu njëkk ci suratul maida li ñuy jàngal mooy wujubul wafaau bil uhud yàlla dafa warlu ci ñun saa yoo déggee wujub rek mooy dafa war ñu respecte matal kóllëre yi matal li nekk sunu diggante ak sunu borom ci ay santaane def ko ci bàyyi tere yi waaye sàmm pacte yi nga xam ne moo dox diggante jaam ñi ak seeni mbokki jaam ñaareel dañuy jële ci aaya yi mooy ibaahatu aklu luhumil ibil wal baqar wal ghanam illa al maytata minha daganal gi yàlla daganal ci ñun nuy lekk gëléem di lekk nag di lekk yeneen jur yi béy xar ak yu demee noonu ndax aaya bi dafa ñëw daganal nu loolu yii nag yàlla daganal ci ñun am na waxtu woo xam ne bu jotee kenn du ko ci lekk muy muy ban waxtu hmm? ban waxtu saa yu nekkee médd saa yoo ñëwee fekk nag bu médd gëléem gu médd xar mu médd béy bu médd watat yóbbu mbalit médd am na lu ñuy jëfandikoo ci moom mu dagan ci ñun waaye lan la loolu der bi yonent bi xoon na xal lan axastum ihaabaha lu tere woon ngeen jël der bi kon dagan na ci ñun mbokk yi ñu lekk gëléem dagan na ci ñun ñu nekk nag ñun nag du sunu yàlla am na ñu jaamu nag waaye ñun sunu diine jaamuwul nag yàlla la ñuy jaamu moo tax nag dagan na ci ñun ñu lekk wal xanam ak yeneen jur yi comme li ma wax léegi xar yeeg lii yëpp yuy lekk nag illa al maytata minha lu dul lu ci médd médd moom ci islaam dafa araam kenn du ko lekk lu dul taxi buy ñëw wane ne médd bi dinañ ko lekk am na fu ñuy lekke médd waaye du ci yii ñetteel mooy tahrimu sayd fi xaalil ihram danañ jàng tey ci benn tere boo xam ne danañ ko tere ku aji màkk jamono yi nga xam ne mu ngi ihram mu ngi armal mi ngi sàngoo mbalaanam yi woddoo benn bi su boobaa araam na ci moom muy muy rëbb su boobaa araam na ci moom muy rëbb ginnaaw ba mu armalee waaye li araam ci moom mooy rëbb amma lu jóge ci géej dagan na ci moom mu lekk li ñu araamal ci moom mooy lu jóge ci jéeri ji ah cim rëbb amma nag lu bàyyeekoo ci biir géej dagan na ci dagan na lekk ci moom moomu nga xam ne dafa armal wa huwa saydul barri lal baxri saydul barr lañ ko tere mooy rëbb amma deex géej loolu moom dagan na ci moom kon loolu nañ ko jàng tamit xam ne ku armal amoo droit di di di rëbb ñeenteel mooy wujubu ixtiraam sha'air diini kulliha yàllaa ngi nuy sant ba tey saa yoo déggee wujub rek mooy dafa war ñu respecté xàmmekaayu jaamu yàlla yi maanaam lépp luñ ne lii jaamu yàlla la nit daf ko war a respecté nit daf ko war a ormaal nit daf ko war a jox cër nit daf ko war a dox gëdd ndax yàlla moo ko santaane waaw la nga xam ne moom lañ la ci sant def ko joxe ko comme niñ la ko sante ak ni mu waree lépp loo xam ne dañ la ko tere nga bàyyi ko wa tarku lima wajaba tarkuhu lépp loo xam ne dafa lañ la ko tere da nga ko war bàyyi kon loolu mooy sha'airullah mooy xàmmekaayu jaamu yàlla yi yi nga xam ne nee nañ shaar la ab jullit na ko respecté mu fonk ko lu ci jot ci wàllu jaamu yàlla na ko taxawe waaye luñ ko ne bàyyi ko na ko bàyyi juróomeel mooy hurmatul i'tida mutlaqan ataalal kafirin danañ jàng tey araamal gi yàlla araamal ci jullit ñi même bu dee yéeféer sax nga xëtt ormaam araam na moo tax tey ñàkk dégg gi am ci diine c'est lu doy waar la jullit ñi ni ñu ñàkk waxuma sax yéeféer mais ay jullit ni ñu ñàkk dégg diine dara warul nu ko nag lu téere yàlla bu ñu bàyyi bi rek topp ci ay xalaatu nit waaw topp ci ay taawil topp ci ay texte yoo xamante ne amul balluwaay ci téere yàlla mbokk yi bu ñu araamalee ci ñun ñu xotti ormaay yéeféer mu ngi nii xurmatul itida mutlaqan hatta alal kafirin ñu ne mutlaq araam na ci yéen ngeen xët ormaay nit ñu ne même bu dee yéeféer la amoo droit xëtt ormaam kon xoolal tey li am ci àdduna bi ay mbir yoo xam ne mënoo ko mënoo kenn mënu ko justifier kenn mënu ko layal kenn mënu ko waaw lu ko waral mooy ñàkk dégg diine kon sunu diine ji foog ñu delluwaat ci foog ñu jàngaat ko foog ñu jege téere yàlla bi tey bokk na ci li yàq sunu dund mooy sori bu ñu sori téere yàlla loolu moom bokk na ci juróom benneel mbokk yi mooy wujubu taawun bayna al muminin ala iqamati diin jullit ñi war na ci ñoom ñu jàppalante dimbalante pour taxawal diine yàlla ji xoolal foofu tamit wala nga gis julli ñi ta jàppalante pour taxawal diine yàlla dañuy jàppalante pour daaneel diine yàlla te dañ ne woon wujub ataawun bayna al muminin ala iqamati diin julli ñi nañ jàppalante nañ dimbalante lu samp diine yàlla bi tey jii fii ñu tollu mbokk yi bu ñu leen doon laaj benn laaj laaj bi mooy ndax diine yàlla ji aaju na mu taxaw wala lu ngeen di tontu xaw kenn tontuwul sax xam nga ne gars yi pare wuñ kenn tontuwul gis nga parce que question yooyu dafa bokk ci nga xam ne dañ ñu cee nelawal pour ñu wax la diine yàlla nit ñi war nañu taxaw pour mu taxaw non mbokk yi loolu farata la fexe ba diine yàlla taxaw tey farata la xam nga da ngay daan dégg bu njëkk bu ñu naan woote ci yoonu yàlla fardu kifaaya la su ko ñuy defee wàcc na nii mais tey fi ñu toll ci àdduna bi woote fardu aynu la jullit bu ko bàyyi am nga bakkaar c'est parce que diine jee tumuraanke waxtu wi jullit ñi toll tey moo gën a metti waxtu wa saxaaba ya nekkoon waxtu wi nu toll moo gën a metti waxtu wa saxaaba ya nekkoon saxaaba yi benn côté lañ nekkoon benn kox benn gox lañ nekkoon fi ñuy wax màkka ñu leen di xeex tey ñiy xeex àdduna fu nekk ah partout dans le monde adduna bi yëpp lañ këpp adduna bi yëpp waaw kon nag ak yeneen yi mbir yoo xam ne moo ci aju ak complot bi ñu complot diine nga xam ne lislaam la ñuy bañ a gis loolu yëpp war na tax tey julli ñi jàppalante nekk benn góor-góorlu ba diine yàlla ji delluwaat place am daal di taxaw wa xurmatu taawun alal mumamasati bihi gis nga nee na di di complot wala di di di yàppuus di yàccaaral ba diinay daanu loolu moom dafa araam waaw wa hurmatu taawunihim araam na ci ñun ñu yaafuus yàccaaral di xoole di xuloo topp suñuy intérêt suñuy bëgg-bëgg loo xamante ne amul amalul diine benn njëriñ tey saa yoo gisee jullit ñi di jàppalante rek ci lu amalul diine njëriñ la billaahi wallaahi saa yoo gisee ñuy werante ci texte yu amulul diine benn njëriñ la waaw loolu rek la ñuy weranteeg loolu la ñuy xuloo ay dëgg-dëgg loolu gaa yi naan xale yi naan aalekal lañ kenn du ko wax kenn du ko laal c'est parce que foofu xam nga ne yow mi koy wax am na lu nekk sa ginnaaw loo xamante ne wax rek la mais après jeex na loolu musiba la mbokk jullit yi diine yàlla ji dafa laaj mu taxaw diine laaj yàlla ji dafa laaj mu samp sans diine jullit du mën a dund diine ci kaw suuf sans diine sans attewu téere yàlla bi dun mun a nekk ay jullit sunu farata yu bari du mat sunu farata yu bare bari dañ koy bàyyi lu tax c'est parce que diine ji lañ dul am nuñ ko dundee te dund diine dafa war jullit waaye diine bi mënul taxaw lu dul ñu dajj ëkk yi nga xam ne ñooy gàllankoor diine ba diine du mun a taxaw fekk dajj wu ñu ëkk yooyu gëzëm ko gis nga guy suñ ko daanelee ba pare bu ñu buggee guy gi dee nu ñuy def dañuy gas pax fi guy gi nekkoon ñu dindi ko ñu déjjati ko waaye bu ñu daggee ci kaw bàyyi ko bu ñu demee deux mois bu ñu fekkee dañuy waa fekk guy gi sax jóge ci kaw guy gi boo ko daanelee nga bàyyi ko foofu sax jëlee woo ko fi nga ko def taaloo ko soo demee trois mois boo ñaaree da ngay fekk loolu nga daaneel di sax loolu mooy shirk nag loolu mooy ñàkk dund diine. saa yu ñu dundul diine rek gàllankoor yu bare bari la ñuy amal ci suñu dund gàllankoor dañuy bëgg yar suñuy doom duñ leen mun yar dañ leen di bëgg a jàngal diine duñ leen mun a jàngal diine dañuy bëgg a yar suñuy jigéen duñ leen mën a yar dañ leen di bëgg a téye duñ leen mën a téye dañ leen di bëgg a defloo li yàlla bëgg duñ ko mën yéen ñi toog fii yëpp ku nekk sa kër am nga fa problème tey sa doom say soxna doom yi jigéen doom yi góor dëkkandoo mbedd ma nga dëkk koñ ba ñun ñi ñëpp ku waxal yàlla rek xam ne am nañ problème waaw kañ la fi koñ koñam nekk koñu islam yëkkati sa loxo kan la fi koñam nekk koñu islam cité islam kan la fi këram nekk kër islam état islamique mu ngi nii gis nga pourtant ñun ñëpp ay jullit lañ de da ngay gis kër goo xam ne ñi fay yeewoo ñëpp cent pour cent musulman ah wala waaye boo fa ñëwee doo gis dara loolu moom mooy xam nga lu tax lu tax loolu mun na nekk lu tax loolu am mooy dund bi ñuy dund moo baaxul parce que dunduñu diine loolu moo tax ñu am jafe-jafe kon mbokk yi juróom benn mbir yooyu ci tënk ci gàttal mooy li nu sunu boroom subhanahu wa taala di jàngal ci ñaari aay yi nekk bopp maayda أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالأقود أهلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم إلا ما يتلى عليكم غير مهل السيد غير مهل السيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الحدي ولا القلائد ولا القلائد ولا آمنين البيت الحرام بيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن تصد أن صدوكم عن المسجد الحرام أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب sunu borom ne ginnaaw ba nu tàmbalee ci turam bu sell bi moom sunu borom subhanahu wa taala nga xam ne moo tas yërmande ci àddina muy arrahman arrahim muy jagleel jullit yi yërmande alaxira rahmanu dunia rahimul axira sunu borom mu daal di woo jullit yi ci baatu ngëm mu ne yunaadi alxaq tabaraka wa taala ibadahu almuminin yàllaa ngi woo jaamam yi nga xam ne dañ koo gëm ci baatu yaa ayuha alladina amanu ci adresse boo xam ne bi unwaanil iman adresse bi lan la mooy ngëm la leen yàlla woowee yaa xarfu nidaa yaa araf la wuy woote mooy ee ayuha alladina amanu yéen ñi nga xam ne yéen a gëm yéen a wax ne da ngeen a gëm yàlla kenn ci saxaaba yi nee na boo déggee ñu ne yaa ayuha alladina amanu mun a taxawal feu rouge bu tàkk la daf lay digal defal wala mu ne la bàyyil saa yooyu dox ba dégg yaa ayuha alladina amanu mu ne xiif taxawal déglul daf lay digal wala mu tere la loolu mooy yaa ayuha alladina amanu borom bi nee na awfu bil uqud mu ne yàlla woon a way gëm yàlla yi yaa man amantum bii ee yéen ñi ma gëm wa bi rusuli yéen ñi gëm samay ndaw samay yonent wa waadi yéen ñi gëm sama dig wa waidi ak sama tëkku ee yéen ñi gëm yi yépp aw fu matal leen bil uqud ci pacte yi al uhud allati bayna al abd wa rabb nga la waay li ngeen waxanteeg man def leen ko ceg li ngeen wax ak yàlla yàlla nee na yéen ñi gëm li ngeen waxanteeg man charte yi ngeen signé pacte yi contrat yi yàlla nee na respecté leen ko allahu akbar bayna al abd wa rabb diggante yàlla ak jaam ñi dafa am lu fi dox dafa am lu leen lënkale dafa am lu yàlla bëgg namm ko sant ko jaam bi jaam bi nangu ko ne dina ko def waaye jaam bi lànk bañ ko def yàlla di ko woo di ko fàttali ne ko yaa ayyuha allazina amanu waaye pacte yi nga xam ne encore ñoo dox baynal abdi wa axi diggante jullit bi ak mbokk jullitam am na lu fi dox yàlla dinu woo dinu ko fàttali wal wafaau biha nan ko respecté adamu naksiha ñu bañ koo fecci waaw bañ koo weddi bañ koo firi loolu la nu yàlla di woo ne nu yaa ayuha allazina amanu yéen ñi ma gëm gëm sama mbir yi gëm li ma wax gëm samay dig waaye ragal sama tëkku matal leen li ma wax fala tuxilluha bu leen ko fecc waaw wala tatruku waajiban bu leen bàyyi lu war wala tartakibu manhiyan bu leen def loo xamante ne dañu ko tere bu leen ko def wala tahrimu xalaalan bu leen araamal lu ma daganal wala taxillu xaraaman bu leen daganal lu ma araamal mbokk yi tey bu ñu yemoon ci daggitu aaya yi tey rek danañ gis jullit ñi sart yi ñu waxante woon ak yàlla ci daganal lu dagan araamal lu araam lépp la ñu dindi sànni fële ñaata mbir ngeen gis tey ci seen dëkkuwaay ci koñ bi ngeen nekk ci dëkk bi ngeen nekk ci gox yi ngeen nekk wala gox yi ngeen di dem di ñëwaat mbir yoo xamante ne dafa araamoon tey nit ñi daganal ko yemuñu sax yemuñu sax ci daganal mbir yooyu waaye dañ koo utal këyit ku koy def da ngay dem ñu may la këyit nga ñëw mbir mi dagan ci yow wet ku la bëgg ne yee nga génn sa këyit ne ko gis nga attention de man dama légal cent pour cent loolu ñaata ngeen ci gis ñaata ngeen ci gis ci ay mbir ak ñaata ngeen ci mën a compter ci mbir yooyu yoo xamante ne yàlla da ko tere woon tey jaami yàlla yi daganal ko mbokk yi ñaata la kenn xamul nu mu toll ci mbir yoo xam ne yàlla daf ñu ko tere woon ay pacte yoo xam ne yàlla moom waxoon def leen ñu defuñu ko lu ñu yàlla ne woon bàyyi leen ñu lànk kon dëgg-dëgg sunu mbir doy na waar trop trop trop trop trop trop trop araamal lu yàlla bëgg daa di daganal lu yàlla araamaloon li ñu yàlla santoon ci wàllu jaamu ñu daal di koy sànni fële wala tuxillu xaraaman bu leen sànni lu yàlla daganaloon ngeen sànni ko fële bu leen ko def kon aw fu matal leen bil uquudi ci digg yi ni ngeen yëg ne uhillat lakum daganal na leen daganal la neef na leen yàlla dagal na ci ñun jullit yi bahimatul anaami bàyyi ma yi nga xam ne ay xéewal la seen yàpp dagan ci ñun yàlla ne nan ko lekk lu mel ne gëléem lu mel ne nag lu mel ne xar ak béy ak yu demee noonu yàlla nee na daganal naa ko ci yéen uhillat lakum daganal nañ ci yéen bahimatul an'ami bàyyi ma yi nga xam ne ay xéewal lañ lu tax ñu tuddee ko bàyyi ma mooy amul xel xel mi matul du comprendre ah benn waaye demoon na ci àll bi daal di jàpp bukki mu ne day yar bukki bi quoi daf ko bëgg a def nit mu dem daaj tableau sang bukki bi ba mu set mu solo ko yére mu daaj tableau ne da koy jàngal mu bind alif mu ne bukki bi alif bukki bi daa dégg benn béy ne mu daw mu daw bàyyi waa ji topp bukki topp béy ba waa ji beneen waaye ne ko sëñ bi noppalal sa boobu kii bukki kese lay doon munoo ko def nit munoo ko yar loolu moo tax ñu tuddee leen bàyyi ma moo tax ci nit ci doomu aadama yi kuñ ne yow ko comme bàyyi ma rek bu yeboo nga xaru ji waaw ndax du wax naqsiha du wax du comprendre ah du mun a ràññee amul xel mu mat yooyu yëpp dafa tëju loolu moo tax ñu tuddee ko bàyyi ma yàlla nee na bàyyi ma yooyu nag am na ci yoo xam ne daganal naa ci yéen ngeen lekk ko waaye ni ko yàlla daganalee ci ñu ñu lekk noonu la araamalee yeneen yi ñu tamit ñu lekk yi dagan na ci ñun mu ne uhillat lakum bahimatul an'ami hiya al ibil wal baqar wal ghanam illa ma yutla alaykum lu dul li ñu jàng ci yéen tere leen ko ne bu leen ko jege am na yoo xam dañu ko tere comme lan ah ah yéen foofu ngeen jëm de bool boobu ah sori ngeen de hmm? hmm? gaynde gaynde nit ñeme na koo lekk la ilaha illallah mu ngoog wa ma harrama am na ci yoo xam ne ci jur yi dafay dafa am sell sell nii ñeenti bëñ yi yooyu daaraam lekk am na ci picc yi naaw yoo xam ne dafa dafa am ay wee comme aigle comme seku bég bi ni mu mel yooyu dañ ko tere ñu lekk bu fekkee ci jur yi la bépp bu am sell mooy ñeenti bëñ yooyu di laalante ñaari ci kaw ñaari ci suuf yooyu yëpp dañ ñu ko araamal ci ñun ñu lekk su dee ci yi naaw bépp boo xam ne bég bi dafa lunk tànk yi jàpp kooku tere nañ ñu ñu lekk soo ci doon joxe misaal ci yi nga xam ne seeni bëñ yi ñeenti bëñ yi la sell yi da nga naan ah xaj ne gaynde ne segg ah bukki génn ci bukki de ah mus dafa am sell yaa am sell boo ñëwee ci picc yi nga ni ceeli tan aigle ak yu demee noonu yooyu dañ ñu tere ñu lekk kon yooyu mooy illa ma yutla aleykum lu dul li nga xam ne yàlla tere na leen ngeen lekk ko na ngeen xam ne yooyu araam na ci yéen bu leen ko jege mu ngoog ak lan ndax yooyu rek lañ ñu tere du yooyu rek de xurrimat aleykum almaytatu wa damu tere nañ ci ñun ñu lekk médd dañ laa wax nga lekk nag waaye bu méddee dañ laa wax nga lekk gëléem waaye bu méddee dañ laa wax nga lekk xar waaye bu méddee mooy hurimat aleykumul maytatu wa dam ak deret loolu tam dañ ñu ko tere deret mu ne yii nii na ngeen xam ne araam na ci yéen amuleen droit lekk ko mooy li ñu yàlla wax ne illa ma yutula aleykum lu dul rek lu ñu jàng ci yéen ne leen li araam na kon bu leen ko jege mu ngoog kon nañu xam ne li yàlla daganal ci ñun mooy yii mu ñu sant gëléem nag ak xarak yu demee noonu yeneen yi nga xam ne araam na ci ñun mooy lépp loo xam ne ci yii dañoo médd nañu xam ne araam na su fekkente ne yi am sell la nañu xam ne araam na bu fekkee yi am tànk yuy jàpp la wala bég bu lunk boobu di mel ne bégu céeli yooyu tamit nañu xam ne yàlla subhanahu wa taala daf ñu ko araamal ginnaaw loolu nag fala tahrimuha bu leen araamal lu yàlla araamul waaw ginnaaw lii loo xamante ne yàlla daganal na ko ci yéen na ngeen xam ne war ngeen koo lekk am na ñaari mbir yoo xam ne dañ ñoo tere waxoon ñu ne dafa araam waaye texte ñëwaat ñu koy jëfandikoo di ko lekk yooyu lan la abadan fas musul araam gëléem musul araam ñaari mbir ci islam texte dafa ñëwoon ñu ne ñu bàyyi leen texte ñëwaat digal ñu ñu lekk benn bi dafa médd benn bi deret la nga xalaat da ngeen di daw buluuxul maraam moo tax ah uhillat lana maytataani wa damaani yàlla daganal na ci ñun ñaari médd ak ñaari res ak ñaari deret ñaari médd maytataani wa damaani ñaari médd ak ñaari deret ñaari médd yi lan ak lan la ku xam yëkkati sa loxo ku xam yëkkati sa loxo ba ma xam ñi ñëw dars ak ñi daw ñoo xam dañuy daw am na fi paa yu daw dars ñaari médd yi lan la jën ak ak njéeréer ñooy médd yi jën médd la wala ah kañ lay lekk jën fu mu ko jëlee géej géej yóbbu ko marché ba jënd médd la waaye yàlla dagal na la ko ak njéeréer ndax yéen Sénégal da ngeen di lekk njéeréer ay fii ku la invité togg njéeréer boo génnee ne ñi ay dëmm lañ ay dëmm lañ ñi gis ngeen njéeréer nekk dañ koy lekk waaye ñun fii xamuñu ko ah gars yi sunna la de du sunna farata la waaw lekk nga ko noo ko lekkee bàkkeel xanaa uh noo ko lekkee soos dangaa dem rek jàpp lekk ah yaa sa waay waay yaa neex de lakka allahu akbar uh mu wag de la ilaha illallah beneen deret bi mooy res ak gàddaam deret la waaye hadis moo ñëw gis nga daan ñu koy may ne ñaar ñee ñaari medd la dagan na ñaari deret la dagan na kon loo xam ne yàlla dagan na ko ci ñun dañ koy jël loo xamante ne tere nañ ñu ko ñu bàyyee kon kenn amul droit daganal sa bopp kenn amul droit araamalal sa bopp moo tax mu ne sunu borom nañu illa ma yutula aleykum lu dul lu nga xam ne jàng nañ ko ci yéen digal leen ngeen lekk wala ngeen bañ a lekk mu ne gayra muxilli saydi waaye na fekk nag ñoo xam ne nekku leen woon da ngeen a arm da ngeen di da ngeen di rëbbi fekkee ne da ngeen a armal nekku leen ñuy ku rëbbi amu leen droit lekk loolu mu nga wantum xurum fekk da ngeen a armal gayra muxilli saydi wantum xurum gayra mustaxillihi fa huwa xaraam bu kenn ci yéen armal nekk ci aj ba pare ne day rëbb saa yoo armalee rek rëbb araam na ci yow waaw mu ne inna allah yàlla yaxkumu mooy àtte maa yurid lu ko neex gis nga yàlla mooy def lu ko neex diine ji loolu moo war a leer ci ñun nekkul ne nun nooy def lu neex waaye yàlla faalun li maa yurid mooy def lu ko neex lu ko namm mu ne lii baax na ci yéen mu jaar ñu daal di koy jàllale moom yàlla lu ko soob mu ne lii baaxul ci yéen ñu daal di taxaw kon yàlla mooy araamal yàlla mooy daganal fala tuharrimuha bu leen araamal loo xam ne yàlla subhanahu wa taala da koo daganal ci yéen wala ngeen fekk loo xamante ne yàlla daf leen koo tere ngeen koy jéem a indi wa hurimat aleykum fan la de foofu lañ toll de aywa mu ngi noonu ñu ngi ci fala tahrimuha wa hurimat alaykum sayd wa antum xurum fala tahillu dégg nga mu ne araamal na ci yéen ngeen nappi astaghfirullah ngeen rëbbi fekk yéen yéen a ngi armal ndeke gis nga ku armal doo rëbb waaye mën nga nga napp dañoo araamal ci yow nga lekkum rëbb waaye dagan na ci yow nga lekk napp waaw mu ne wa sallimu al amra na ngeen jébbal mbir mi yàlla fala tunaziu fi ma ahalla aw ahrama mooy li yàlla wax ne sunu borom li mu ñu wax ci aaya bi fii yaxkumu ma yurid inna allaha yaxkumu ma yurid yàlla mooy attalu ko neex moo tax mu ne jébbal leen mbir mi yàlla bu leen xëccoo ak moom ne lii moo dagan wala lii moo araam déedéet xam leen ne li yàlla daganal moo dagan li yàlla araamal araamal na ko fa inni ahkumu ma urid man yàlla may àtte may dogal lu ma neex yàlla bu ne ne lii moo dagan ci ñun looloo dagan bu ne ñu lii moo araam lii moo araam yàlla moo daganoo moo araamaloon ci ñun médd waaye gis nga yonent bi ñëw indil ñu texte ne ñu yàlla ma leen tere woon médd may na leen ngeen lekk jën may na leen ngeen nekk njéeréer ñaar yooyu mu daganal ko waaye mu ñëw ne yàlla moo leen tere woon deret yàlla may na leen ngeen lekk res ak gàddaam ñaar yooyu deret la mais lu dul loolu ci diine lu su méddee rek araam na su nekkee deret araam na lu dul ñaari taxi yi kon mu ne moo tax jébbal leen mbir mi yàlla bu leen xëccoo ak moom li yàlla daganal moo dagan li mu araamal moo araam moom yàlla mooy àtte lu ko neex ñaari aay aaya boobu lii la ëmb ci ay àtte sunu borom woowaat ñu nañu yaa ayyuha allazina amanu gis nga de njëlbeenu aaye ak aaye ba ca tegu ñaari aaye yëpp yàlla lan lan woo baatu ngëm yaa ayyuha allazina amanu laa tuhillu bu leen fecci sha'airallahi xàmmekaayu jaamu yàlla yi yàlla dafa am ay mbir yoo xamante ne moom la tëral mu nekk sha'air mu nekk xàmmekaayu jaamu yàlla lu mel ne aj lu mel ne umra ak yeneeni mbir yi nga xam ne ñoo ci aju lu mel ne julli lu mel ne koor loolu lépp ay sha'air la lépp loo xam ne dañ ci xàmme lislaam mu nekk santaane sha'air la kenn amul droit di xëtt loolu di ko di ko ñàkk ormal bu leen def loolu yéen ñi nga xam ne yéen a gëm ngalawaay laa tan tihu bu leen fecci sha'air allah xàmmekaayu jaami yàlla yi mu ne nekk mun na nekk aj mu ne nekk umra mu ne nekk saa'iru alaami diin mu ne nekk mbooleem xàmmekaayu diine yi yi nga xamante ne moom la sunu borom subhanahu wa taala santaane mu ne wala shahral harama déet mu nekk weer yi nga xam ne dañoo araamal ku ci xeex dafa am ay weer yoo xamante ne ci islaam dañoo tere julli duy xeex ci ñoom la ñuy wax ashurul xurum ñaata weer la ñeenti weer la yan ak yan la na tegaloo yan weer la bismillah waaw mhm mhm rajab aywa saarul haram bii nag fii mooy rajab moom la ñu yàlla wax fii mu nekk moo tax àtte na ëmb na te dammanat ahkaamu ahkaamu ahkaaman baaduha nusixa al amalu bihi wa baaduha muhkamun yumalu bihi aaya bi ñuy jàng nii li ñu yàlla wax fii ya ayuha alladina amanu la tuhillu sha'air allah wala alshahra alharama wala alhadiya wala alqalaida aaya yii di ñëw sunu kanam dafa ëmb ci ay atte yenn yi ñu mën suuxal ko yenn yi mu ñu bàyyi ko fi di ko jëfee waaw ba yowmal xiyaam mu ne fa minal mahkumil waajib yi nga xam ne dafa ñëw ñu ci atte al amalu bihi tahrim sha'air allah mooy yàlla araamal na ci ñun ñu xët xàmmekaayu jaamu yàlla yi wa hiya i'laamu diin min ash-sha'air fardun aw waajib moo xam farata la moo xam dafa war lépp loo xam ne yàlla din sant nañ ko ci farata yooyu dañ ko war a def wa nahyin wa haraamin wala tere ak araam lu ñu tere wala araam dañu war a bàyyi mu ne fala tastahillu bi tarkil waajib kenn du wax ne man de dëgg dëgg dëgg damay bàyyi lu war waaw ndax nangam ak nangam su ma defee jaamu yàlla bi damay am problème mukk mbir mi moom bu waree defal laa taata li maxluqin fii maasiyatil xaaliq yàlla du la sant ne la defal dara benn waaye réere file ne la bul def nga bàyyi abadan innama taatu fil maaruf bu ñuy topp nit day fekk mu digle lu baax waaye koo xam ne li nga digle lu bon la kenn du la topp moo tax yenn saa yi nga dégg ku naan man sama jëkkër moo buggul ma kii wala man sama papa moo buggul wala man sama chef non abadan yàlla bu santaane kenn dootul xool papa kenn dootul xool jëkkër kenn dootul xool chef santaane yàlla moo féete kaw santaane yépp waaw loolu lañu war a xam kon santaane gi yàlla santaane atte ne lii dafa war dañ ko war a def dañ ko war a def li mu araamal ne bàyyi leen ko dana war a bàyyi waaye kenn du am kersa wala ngay am ñàkk dara ba ne li yàlla tere de wax li yàlla tere moom wax dëgg yàlla mënuma ko bàyyi wala nangam wala bi fi'lil muharram loolu tamit bu mu la yóbbee ba ngay def loo xam ne def araam mu ne wa min zalika manasikul hajj wal umra bokk na ci yooyu xàmmekaay yi nga xam ne mooy aj ak umra yii mooy santaane yi boo ñëwee ci yi nga xam ne daf ko man suuxal mu ne fa inna qital kaana muharraman fi l ashuril xurum xam ngeen ne ci diine xeex ci weer yi ñeenti weer yi ngeen wax sànq ci diine xeex ci ñeenti weer yooyu lu ñu ci waxoon dafa xaram dafa xaram mais tey dafa dagan lan moo tax dafa dagan ndax yàlla moo jox ndigal julli ñi ne na ngeen xeex ak yéeféer yi fépp fu ngeen leen mën a nekk waaw waaw kon dagan na faqtulul mushrikina haysu wajadtumuhum na ngeen rey bokkaalekat yi fu ngeen leen mën a nekk fu ngeen leen mën a fekk moo tax ay démb dañuy tere woon ñu xeex ak ñoom ci ñeenti weer yooyu waaye léegi ñeenti weer yooyu bu jotee ndax dañuy arrêté déedéet aaya moo ñëw ne nañ leen rey fépp fu ñu leen mën a nekk fu ñu leen mën a fekk kon dafay dagan ñu xeex ci ñeenti weer yooyu ndax yàlla subhaanahu wa taala moom moo ko man suuxal mais bu njëkk ba xeex ci ñeenti weer yooyu dañ ko dañ ko tere woon moo tax mu ne wala shahra alxarama wala alxadiya mu ne du addiya addiya mooy lan li ngeen dégg mooy addiya alxadiya moom la ñuy wax alhadiyu fii lan la mooy gëléem wala hadiyu boo xam ne dañ koo jël askane la ko kaaba ga kaaba ga la jëm ci bàyyima yi moo xam gëléem la wala mu nekk nag wala mu nekk xar wala mu nekk béy su nit jëlee benn gëléem daan ne lii de ha- hadiyu la kaaba ga la jëm kenn amul droit laal ko kenn amul droit jaay ko jaay ko araam na ba mu egg kaaba ga su demee nuñ koy def ñu rendi ko séddale ko miskin yi loolu ngeen di gis ci jamonoy aj ku aji màkk yow looy def da ngay tabaski wala hadiyu ngay def hadiyu ku ajiwul mooy def tabaski kon hadiyu yi yàlla lool la ci santaane mooy lan bis boo xamante ne dangaa aji nga jëm màkk yow hadiyu nga war a def waaye sa hadiyu kenn amul droit laal ko Hmm? gis nga fecc mu ngi noonu yépp ci fecc yi daf koy tere wala alqalaida lan mooy alqalaid mooy hadiyu bi buñ ko jëlee ba pare daa di koy takkal benn morso wala ñu takkal ko benn bant wala ñu takkal ko benn xàmmekaay ñu bind ci lii hadiyu la kenn amul droit dagg loolu pour affaire bi réer xàmmekaay la bu ñuy xàmmee alqalaid bu ñuy xàmmee hadiyu bi tey di nga gis yenn saa yi ñu takkal ko benn déedéet ndomb moom ba bidaa la moom musiba la benn xàmmekaay comme mooy gars yi li ñuy def collier waaye na fekk bu mu nekk comme waa Sénégal li ñuy def fii de jël ay yax ak jël ay nang loolu baax loolu baaxul wala bënn nopp xar bi def ci benn kii loolu dañ koo tere waaw bu njëkk ba loolu lañ daan def dañ daan takkal hadiyu yi alqalaid mooy lu ñu leen di xàmmee ne bu ñu rombee ah nit ñi bañ leen a laal xam ne lii kaaba ga la jëm kenn du ko laal wala aminin al bayt bayt al haram gis nga bayt al harama wala amina waaw doo doo bàyyi bañ pare ah bàyyi bañ pare rek waaw wala amina bayt al harama bu kenn bu ñu bi ñu sunu borom subhanahu wa taala tere ñu laal hadiyu yi tekki xàmmekaay yi lan la ci teg qaasidihi yatlubu rabhu tijaara bu kenn dem mbir yooyu bu ñu jublu kaaba ga ba pare nit dem tourner dem jublu ci pour bëgg commerce bu am bénéfice bu bari qaasidihi ngeen jublu ko yatlubuuna rabhu tijaara aw ridwanun ngeen jël ko bëgg bénéfice boo xamante ne da ngeen koy tourner détourner ko mu daal di jóge ca Kaaba ga loolu ab jullit bu mu ko def na ngeen xam ne loolu yëpp yàllaa ko moom waaw na fekk daal bu fekkente ne yéen a ngi ci jublu na ngeen ko jublu pour lan pour am ci kontaante yàlla subhanahu wa taala mooy yabtaxuuna fadlan min rabbihim pour ngeen ut ay xéewal yoo xamante ne yàlla subhanahu wa taala moom moo leen koy defal na fekk loolu ngeen jublu ko ci amma bu dul loolu tere nañ leen ngeen def ko kon gis ngeen aaya yi nga xam ne dañ ko mën suuxal ak aaya yi nga xam ne dañ ñu koo digal li ñu mën suuxal mooy xeex ci weer yi dañ ko tere lan moo ko mën suuxal mooy yàlla moo ne na ngeen leen rey fu ngeen leen mën a fekk waaye bokk na ci loolu encore lu ñu mën suuxal yéen laa déglu wa minal mansuux aydan hadiyul mushrikin bokkaalekat yi bu ñuy jëlee hadiyu daa di koy joxe ne na dem kaaba ga kenn du ko nangu ah lu tax ndax bokkaalekat kenn warul nangu sax mu dugg xaramu màkk moo taxit loolu tamit yàlla subhanahu wa taala daf koy dindi ah moo tax mu ne hadiyul mushrikina wala qala'idihim wal mushrikuuna anfusahum fala yusma'u lahum bi duxulil xarami seen addi yoo xàmmekaay yi ñu ci def yëpp kenn du leen ko nangul ndax ñoom ci seen bopp waxuma la seen hadu yi waaye ñoom ci seen bopp sax dañ leen di interdit zone màkk kenn du fa dugg moo tax bu ngeen demee kuy aji da ngay gis am na fooy dugg dañuy bind ci kaw benn tableau zone interdite par non musulman foofu xaram bi ku dul jullit du fa dugg loolu la yàlla def mu ngoog kon sunu borom subhanahu wa taala loolu la santaane ci jaamu yàlla yi nga xam ne moom la ñuy jël def ko addi yu mu daal di jëm màkkatal mukarram mu nekk xéewal yoo xamante ne dañ ko faa war a jaamoo ji yàlla su fekkee nag yëpp taxu na da ngeen di wut fadlan xéewal min rabbihim bu bàyyeekoo ci seen borom wa ridwaanan ak ngëneelam da ngeen xam ne loolu mën naa nekk waaye bu mu fekkee ne defu leen li na ngeen day talu mu ne fa isa xalaltum fastaadu bu ngeen demee ba simmeeku ci armal yi su boobaa nag léegi mën ngeen a mën ngeen a rëbbi waaye ku armal du rëbb gis nga boo armalee pitax yi dañuy ñëw sax wàcc sa kaw waaye amoo droit laale boo reppee ba rey ci benn lu toll noonu ngay fay opérateur dafa am leneen lu lay waraat même soccantal bu wàccee sa kaw amoo droit rey ko moo tax da ngay gis foofu nit ñi di aj nga gis ay kéemtaan yoo xam ne ay rab yuy naaw di ñëw di wàcc ci kaw nit ñi mais kenn du yëngu kenn du bouger kenn démb gis naa ci Facebook bi benn waaye buy may muus muy naan ci biir kaawal ak ñaari loxoom muus mi frenkulaay ci kaw jàppukaay bi fi ñuy toogee waa ji di ko may ndox muus mi naan ak ñaari loxoom day root ci robinet bi zam-zam may ko mu naan root may ko mu naan voilà loolu moom ay kéemtaanu yàlla yoo xam ne saa yoo fa demee gis ko yàlla nee na fa isa xalaltum fastaadu bu ngeen simmeekoo ci armal napp leen waaye wala yajrimannakum bu mu leen jàpp bu mu leen dal bu mu leen jot sanaanu qawmin bañ ay nit waaw bañ ay nit an tasuddukum anil masjidi haram ngeen bañ ay nit ba baarale nañuy duñ dem kaaba ga loolu bu mu leen dal gis nga bañ nit yàlla daf ñuy wax ne nit ñi lu ngeen leen bañ bañ na ngeen maandu la yajrimannakum sanaanu qawmin ala ala an la taadilu yenn saa yi da ngay bañ nit rek la ilaha illallah wala nga bañ kenn rek këram sax ku fa génn nga ni musrik la safara la jëm waaw déedéet bañ ay nit bu mu tax nga bañoo nga maandu loo bañ bañ bañ nit maandul su defee lu baax nga wax baax na su defee loo xam ne xamoo nag nga ni lii xaw ma ko waaye bañ ay nit yàlla nee na bu mu tax laa yaxmilannakum bu mu leen yenu bu mu leen puus baadu qaw buxdu qawmin bañ ay nit an taatadu alayhim ba ngeen jalgati seen kaw ay ñoom ay lii lañ waaye bismillah reyal ñëpp déet loolu kenn du ko def gis nga moo tax même aaya yu mel nii bu ñu ko doon jàng tey dinañ xam nu ñuy dundee suñu diine xam fu ñu war a yem ak lu ñu war a def waaye tey dañuy raatale rek di dem sooy weddi ñëpp ngay weddi booy xas ñëpp ngay xas sooy wax lu bon ñëpp nga koy boole pourtant am na ñu ci bokkul de am na ñoo xam ne meluñu noonu de mbooloo moo gis am na ñu baax am na ñu safaan kon ñi safaan ñi bu mu tax ngeen yóbbaale ñeneen ñi non ñoom ñëpp noonu lañ mel déet waxal moom kii noonu la mel waaye mbooloo ma yëpp wala kër ga yëpp wala famille bi yëpp nga buub leen loolu loolu dag loolu dagal mos naa gis benn xale bu jigéen boo xam ne benn waaye daf ko bëgg ñu daf ko bëgg jabar seen waa kër opposé ñu ne leen lu tax ñu ne ñu ne ñu ne kii yaayam day dem mbuur yaayam mbuur lay liggéeyee waaw ku sa yaay di liggéey mbuur rek ku bon nga léegi xale bi mu xale bu jigéen bi lu ci yoonam aussi war nañoon laaj bu fekkee ne dafa dem mbuur war nañ laaj lu muy liggéey mbuur ba ñu xam lu mu fa nekkee waaye yaay mbuur la nekk rek kon kenn du kenn du takk doomam loolu tamit beneen mbir la tooñ la bu yaay ji demee fee te xale bi demul nag xale bi moom mu ngi toog seen kër ja nekk jullit jaamu yàlla baax kon kay wax dëgg yàlla bu ñu jël bàkkaari yaay ji daal di ko ko yen waan laysa lil insaani illa ma saa yàlla wax na ci alquran ne kenn ku nekk li nga def yow ya yow yow yaa koy yenu borom bi nee na wala yajrimannakum bu mu leen dal bu mu leen jàpp bu mu leen yen sanaanu qawmin bañ ay nit ah ba ngeen baare leen an tasuddukum ngeen baare leen an masjidil xaraam yi ci jàkka yàlla ji subhanahu wa taala an taatadu ngeen di jalgati seen kaw ngalawaay wa taawanu dimbali leen dimbalante leen alal birri ci lu baax wala ta wa taqwa ak ragal yàlla li ñu war a dimbalante ci sunu diine mooy lu baax ak ragal yàlla moo tax lépp luñ la woo mu nekk ndimbalante di la baax di la yóbbu ci ndimbalante ak ragal yàlla demal nga wuyu ji lépp luñ la woo ndimbalante amu ci bàkkaar kese la bul wuyu ji ak ki la ci mun a woo ku mu mun a nekk ndax lii kat mooy aaya bi mooy dalil bi wa taawanu dimbalante leen alal birri ci lu baax ak lan wa taqwa soo déggee nag ñu ne alal birri wa taqwa mooy dimbalante leen ci lu leen di yokkal mbaax ak ragal yàlla loolu la war a nit ñi war a dimbalante waaye dimbalante ci bàkkaar tey li ma gis ci jamono bi mooy nit ñi di dimbalante ci bàkkaar damay xumbal waay acca ñu dugg ci kër yi gars yi di participer ku nekk téeméer téeméer loolu dimbalante lan la bàkkaar la ket waaw équipe bi nawetaan bi day football yi gars yi di cotiser oustaz waaw gars yi gars yi dañuy finaalu ngoon de waaw soxla nañ ñaan soxla nañ seen dimbal ma ne àllaaxira ca ngoon kay du ma joxe yàlla dara kay mu noon ñu gàñe leen ñu gàñe leen waaw ndax bàkkaar kese lay yokk kon dimbalante képp ku ñëwati ci yow di la laaj ndimbal wala muy sàkk ci yow ndimbal xoolal ndax loolu ñuy def suñ ko defee dina jural dëkk bi mbaax dina jural nit ñi jub ak ragal yàlla su fekkee loolu am na dem leen su fekkee loolu amul taxaw leen yàlla mu ne wala taawanu bu leen dimbalante alal ismi ci bàkkaar wal udwaan ak luy indi noonalante gis na lépp loo xam ne day tax buñ ci paree nit ñi noonoo buñ ci paree bàkkaar yi ne fas suñu kaw loolu buñ ci dugg waaw kon dimbalante bi ngay dégg même ci jigéen ñi nga xam ne dañuy dañuy seen affaire yooyu ni ñu koy tuddee ndawtal xam nga bu njëkk ba paa yi nga xam ne wala nit ñi nga xam ne ñoo indi woon ndawtal ñoom lan lañ ko jëlee woon ndimbal waaye tey lan la tey riba la benn yow mi nga xam ne yow la ñuy jox sa kaye ngay yor diw indil na ma 5000 diw indil na diw indil na diw indil na diw indil ku indi 5000 soo koy joxaat 10000 ku indi 10000 soo koy joxaat loolu daa dem sax léegi ba ci jaxal dëj yi ba ci jaxal dëj yi jigéen ñi kaye la ñuy yor waaw comme ba indi na 10 000 kon bu yaayam dee 10 000 laa yóbbu laa ilaaha illallaah ko bi sa haasa 10 000 ah comme ba indi na 5 000 bu yaayam dee 5 000 laa koy jox sama jëkkër bi mu dee diw 50 000 la ma indil kon man 100 000 laa koy yóbbul loolu musiba la loolu ñi ko doon def yëpp ndimbal lañ ci mooy gis nga tey fu ñu ko yóbbu kon képp koo xam ne ci yéen am ngeen ci soxna wala nangam muy defi loolu yëgal ne mu ngi ci lu araam di 2000 la la joxoon delloo ko 2000 am wala nga jox ko 1000 francs su ko fa yemalee mu neex nga mucc bu waxee nga ne ko xanaa da nga maa dimbali woon ngir yàlla jeex na wala sax nga bañ faa ut ay kaye li gën a wér mooy bul ut kaye ku la jox boxoñal dugal sa poset xoolal li ma la jox nga ne ko am téel na dellu waaw boo amul fulla sa diine la ñuy yàq dëkk bi boo amul fulla sa diine la ñuy yàq parce que da nga leen di ruus ruus problème yi ñu ëpp yi ñu am moo lan moo ñu koy indil. complexe. complexe même sax da ngay gis ngénte loo xam ne waroo faa dem ñu woo la wala ngénte loo xam ne dafa am musique ñu woo la nga waaw man kii xaw ma nu ma koy def xaaral ma dem rek. demee toog fa yendu ndax lan parce que da ngaa rus da ngaa bëgg ëllëg ak si biir yow tamit boo leen woowee ñu ñëw déedéet man kay sa ngénte li dinaa dem wuy ji bu dee defoo ci lu araam. boo defee sa lu araam da nga def ay musique ak nangam nangam bu mu ñëwee maroom bu musique bi dugg ci biir wax ak yow jox la li ma lay wax ñaanal liir bi ñibbi. tàntaak du ma fa toog. waaye pour toog fa yendu fa nag nangam ak nangam yenn saa yi sax nga gis sunu mbokk yu jigéen yi langue bi commencé nga gis leen ci digg langue bi ñu toog tama yi tëb ñuy tàccu boobu moom ëpp na. dal noonu yàlla dimbali won ñu dëgg wërsëgal ñu topp ko. yàlla mu ne wala taawanu bu leen dimbalante alal ismi ci bakkaar wal udwaani ak noonoo wattaqullaha ragal leen yàlla allahu akbar wattaqullaha moytu leen yàlla gis nga yàlla dafa joxe ay mbiram ba pare ay njàngaleem ay doxalinam ba pare bi aaya bi di jeex mu ne moytu leen ma moytu leen yàlla ci lan ci def lim leen sant bàyyi lim leen tere moytu leen yàlla ci lan ci dégg ndax ndénkaane yi ngeen def ko ngeen moytu tere yi na ngeen yëg ne inna allaha yàlla shadidul iqaab ku tar mbugal la allahu akbar gis nga li ñuy jàngale bis mu nekk mooy bu dars yi di jeex aaya yi ñu ne nañu bàyyi xel aaya yi xool leen mbokk jullit ñi tey sunu aaya bi fu mu jeexee sunu borom ne moytu leen ma ndax kat sama mbugal dafa metti wattaqullah na ngeen ragal yàlla ngeen moytu ko ngeen yëg ne inna allaha yàlla shadid ku tar la al iqaaba mbugal wallahi wax na dëgg yàlla mbugalam xejul ci nit billahi mbugal yàlla xejul ci nit mbokk yi waxuma sax ay safara wala ay nangam ay nangam waxuma ay malaaka waxuma jahannam waaye benn bëñ ci sa gémmiñ gi bu ko yàlla yëngaloon ah fii nga toog bu yàlla yëngaloon bëñ bi yëngal ko fii ba guddi gi jeex dootoo waxati nii rek ngay def da nga naan boo demee docteur bi la wax loo metti sax doo wax da nga naan nii rek doo wax wala bëñ moo gën a tuuti ci yaramu nit wala allahu akbar mbugal yàlla xejul ci nit waxuma laag nag yàlla wax ay subhanallah ay jahannama fi ay sair ay laza ay xutama ay saqar safara boo xam ne ay mbugal yoo xam ne yàlla buñ koy wax ci alquran kon yàlla bun ne inna allaha shadidul iqab man yàlla ku tar mbugal laa kon ñu war koo gëm walla mbugal yàlla xejul ci doomu aadama waaye doomu aadama rek moo dëgër bopp ba mbugal yàlla dal ci kawam waaye mbugal yàlla xëyul ci nit yal na yàlla musal ci mbugalam ñu ngi jéggalu njuumte yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu